قرة أعين واجعلنا للمتقين mbokk yi ñu leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di leen jotale nuyoo fii nuyoo nga xam ne tey mooy porte-parole fii di Cheikh Mahi Ibrahima Mahi Ali Cissé dañoo daje bu yàggul di seet rek li ñu war a ay ay ay foo yoo xam ne dootu ci def alal ci kenn ñun ñoo koy tayal seen bopp daf ko ci di bàyyi ma moo tax ñu daal di daje nag def def na ay réunion yu bare bare ñu ko ci gërëm ci loolu di ko sant di ko ñaanal yàlla di ko wax na ko ilal amaam yàlla na yàlla jox ko ci dana jox lépp loo xam ne yaakaar na ko ci waay ñu ne moom ñu gisee man sama baa ñu ko oo man taal bi bàyyi